wa tabaaraka allahu aliyun ak collaborateur yi mu am ak allié yi nga xam yëpp ñoo nekk allié pur ñi ñu tudd ak ñi ñu tuddul ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp sant ñëpp sant tabaarakallahu militant yi fi daje yëpp ak responsable yi ñu ci directoire beeg tabaarakallahu invité yi ngeen fi am itam ñu nuyu leen góor ak jigéen mag ak ndaw tabaarakallahu li rafet yépp wax nañ ko ba noppi dama daan dégg nag ci wàllu sport moo xam football la walla beneen discipline bu mu mën a doon ñuy wax ni que que le meilleur waaw mais ñun li ñu préféré moo di être les meilleurs waaw waaw bu dee gañe nag ci loxo yàlla la nekk moo tax bàkku teel na saalit itam teel na waaye li ma gëm dafa am sama wayjur bu jigéen bu ñuy wax soxna sa fi dem benn ñaan rekk la daan ñaan yàlla nañu yàlla defal la gën te gënal waaw kon nag ñu nit boobu ñaan rek la ñuy ñaan yàlla nañu yàlla defal la gën te gënal ñu te moo di la soir du 24 ah kenn ku ci nekk sa xol bég ndax li la taxoon di sonn yépp yàlla jox na la ko waaw te moo di sunu mbokk mi Alioune bii yàlla jox ko li ñu ko yéene ba tax ñu doon ko tànn moo collaborateur yi moo am yépp yàlla sàmm leen yàlla jox leen ndamu àdduna ak wàllaaxira mu mel ni itam mag ñi dañuy wax ni ndam baax na waaye sag moo ko ëpp doole ndax ndam mën na am mu yem ci benn bés waaye sag giiru dund la mu mel ni mag ñi nag defal nañ ñu sag ba noppi kon nag ndam bi moo ci des ñun ñooy taxawal suñu bopp fexe ba ndam bi ñëw incha allah kon nag ñu ngi gërëm képp ku sonn ci yëf yi tàmbalee ko ca commencement ba ba léegi doonte temps bi doyul waaye li ngeen mën def ngeen ko wax dëgg yàlla suivre nañ leen suivre nañ leen ca début ba ba ci fin bi tey fu ngeen jaar fu ngeen dugg lu ngeen waxante tabaarakallahu nit ñi leen fi yiir kenn ku ne fa mu jaar ak yéen ak la mu wax ak yéen fa tabaarakallahu kon nag yàlla bu yaakaar a tas yàlla nañu ko muurloo képp ku ñu ko yéene ñu bokk ko ak yow fa tabarakallahu mu ngi guddi te comme Alioune dafa am rendez-vous léegi te wax dëgg yàlla ah ku woor ba ngoon boo sañoon wax dëgg yàlla a ah, xaw a dimbale sa bopp tuuti waaye ma di leen yégal ni amul dara lu ñuy def ñun te yàlla du ko inscrire ci jaamu yi mu bind waaw bu ngeen nekkoon fii ba fajar di tëgg ma di leen waatal ci alquran ni moog naa fi la benn la waaw ndax sëriñ Babacar Si dañoo tëju ak ay homme politique ñuy waxtaane wallu réew mi am góor gu ñëw njëkk ko fëgg ni ko timis jot na mu ni pat toogati ba ca kanam kooku ñëw fëggaat ko ni ko timis bi jot na mu ni ko ci julli lañu nekk waaw ndax lu defar sunu réew la waxtaane waxtaanee te lu ko ëpp amu fi ndax bala nga ni naam ne fa waaw bu ko defee kon nag ah bu yaakaar kenn ku ne yàlla yàlla defal la sutura ak tawfiq ngeen dellu ca kër ya ci jàmm fekk fa ñëpp ci jàmm te lu ngeen sonn moo xam ci wàllu jaamu yàlla gi la wala ngeen sonn ko ci wàllu seeni campagne yàlla na leen yàlla jox ci ndam lu ko ëpp fuuf barke mag ñi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam